problème bi ma fi indi daal problème bu tiis la bu ma naqari la loo xam ne yàgg naa ko suivre waaye nag maa ngi ci door am preuve moo tax ma ni lu mel nii moom nit ñi ngi koy dund il faut ma ñëw tës wax ko parce que ñi nga xam ne ñi ngi koy dund ñu sañ a wax ndax nekk ak mag am yoo xamante ne da nga ko koy def loolu sax garaawul sama yaay ko mën a muñ la parce que ñun biñ nekkee Grand Yoff sama yaay def na lu nekk pour jënd këram man damay liggéey ba wàcc jàppale ko ñu dem jaaye ji noonu la ñuy def ba mu jënd këram Tivaouane Peulh mu instant yi parce que dem na ba jënd këram toog noppalu doomam yi takk jabar dafa war a noppalu n'est-ce pas bu yàgg da doon jaay da doon jaay waaw da doon jaay finalement mi ngi Tivaouane Peulh ci këram gi nga ne moo ko moomal boppam moo fexee jaay ba jënd kër yi waaw léegi sama mag bu góor bi nga xam ne maa topp ci moom dafa am jabaram bu léegi sama jabaru mag boobu ñoom fi ñu toog ci seen jataay ñu paree li ñuy def rek su toggee pare rek moom ma nga ca mbedd ma mbedd mi rek mooy ak baayam moom sa goro yaay la xale bu jigéen bi. sama goro yaay la waa mbedd ma daal la def xarit ñoom la def lépp fa lay toog di attaaya bu toggee mën naa ne la fa la koy sóori jee mais loolu yëpp sama yaa mosu koo kaas mm. bu kër gi balaa mu fee dugg si day xam ne ay 9 heures jot na jëkkër ji di door a wàcc pare añ de ba génn bu xamee ji mi ngi door mi ngi waaj a wàcc mu door a dellu si wàcc koo fatu ci kër sa doo sa jabar ci mbedd lay toog wax yooyu yëpp waaye nag ñoom fi ñu toog dafa am koo xam ne daf ko faa parce que dafa am luñ fa doon waxtaane am koo xam ne géejawaay la dëkk léegi bi mu jugee géejawaay ñëw tuxu tiwaan pël foofu la nekk léegi léegi moom ñuy toog noonu di jataay di attaaya kooku ne man sama goro bi daf maa sonaloon moom ki jugee géejawaay de daf maa sonaloon léegi dama ko fexeel sama indisposé yi laa ko daan jox ba mu ngi nii di ko ko daan defal ci café léegi deena may ma jàmm léegi nag kan moo wax loolu ki nga xamante ne géejawaay la jugee ñëw si tiwaan pël ah wax loolu moo wax loolu ci seen jataay bi te lépp ñun duñu génn suñu kër waaye lépp fekk si nañu ba suñu biir kër keneen ay rocce ko ba ne nettali leen ko biir te kooku foo demee da leen di fekk ci seen biir mhm. muy benn mhm. preuve yu leer laa ci am mhm. te man dama daan dugg ci waañ bi gis affaire jigéen jigéen laa xam nañ léegi man yi ma daan gis ci waañ bi dama daan lii lu muy def waaye kii xëy na daa sàggan ma gis ko fi ñaari yoon léegi ma noppi loo gis yow. maanaam li ñuy def ci kanamu jigéen bu ñu indisposé. waaw loolu laa gis ñaari yoon ci wàññi. serviette hygiénique yi ñuy utiliser. bu xale bu jigéen indisposé li muy utiliser serviette hygiénique waaw. gis naa ko fi ci waañ bi mais aw. ci waañ la def ci wañ moom ma jaaxal di. ci noo koy gisee ci waañ bi dañ koy utiliser raxas ko am set teg foofu. wala day taq deret ba tey. damay gis maanaam ñu raxas ko ba mu set. mais ma ne kii daal lii man amoon naa ñaaw njort mais leeru ma woon. parce que raxas ba mu set nan maanaam dañ koo raxas nal ko. waaw dañ koo nal dañ koo nal. léegi léegi bi action bi amee ba affaire jël tegee fan saana ci suuf wala waaw biñ ko nalee ba pare sànni ko ci suuf mm. man daal ma gis ko ñaaw njort mm. xam nga nit ku ne nit nga mm. ma ñaaw njort sama xel ñaaw ma ne ah garaawul parce que lii daal man mënu koo wax parce que amaguma ci preuve mais pour yow dafa salté rek mais deful yooyu laa dafa dama yaakaar dafa salté mm-hmm. mais action bi di dem gis nga nit ki bu nekkul ci dëgg yàlla mooy ki kay weer ba àdduna bi yëpp gis ko moo tax nekk ci dëgg rek moo wóor léegi nag ndaw si bi mu am ku ñëw ci ñun ne ñu moytu leen ndax kii ñi ngi koy digal loo xam ne xam naa ne mu ngi leen koy def ma ne ah daal dañuy yàq parce que yàqkat dañoo bari boo ba nga xam ne doo xàmmee kan mooy wax dëgg ak kan mooy sos mm-hmm. wóor na yàlla bi ma amee preuve nag li ma ci amee mooy sama yaay bu ñëwee xelli café gi nii buñ seggee suba gi moom ku jigéen ki teg ko ci palaat bi su ko tegee ci palaat bi au lieu mu ñëw de indi palaat bi yëpp déedéet day tànn bi mu def indisposé ñëw jox ko sama yaay moom sa sa goro yaay bi day day jël am nal ko ci café gi muy jox sa yaay suba teel dem jox ko sa yaay mu ndékkee m ndékkee léegi sama benn jour sama mag bu jigéen jugee fi dem Tivaouane Peul ñëw bi mu ñëwee kaas bi mu ko indil dafa ne ko balaa ma koo naan naana ndax lii kat lu amul seede baax ñoom ñaar ñoom dañoo wàcc léegi nag sama mag bu jigéen bi. mais sa xamoon na ne am na lu ñuy def ci café bi. am na lu ñuy def ci café gi waaye bëggul wax bi ma ko waxee damay dem fii dafa bañ. ma ne ko mhm. dinaa dem balaa ngaa dee. Mhm. ndax ki ka def gorom ba mu dee. digal ko nit pour mu def la ko ñun dañoo bëgg nga dund dinaa jaay lépp jëndee ko ju dund jox la kon duma xalaat ku lay lor wala ku lay kii naan ma affaire mbokk la ma ne ko mbokk buy def lu bon da nga koy weer ndax àdduna bi yëpp jot ci def lu bon amul mucc mantulaay te képp ku ciy nekk defet rek ngay am léegi moom day naan indisposé def si café yaay ñoo jox sa yaay sa yaay di naan sa yaay dafa tëdd feebar fi mu toll nii dafa feebar instant yi sax tane na sama mag bu jigéen nee na ko léegi bul naanati kafe bi léegi mhm. su ko indee wër na yàlla ku dee ak sa bàmmeel fii ma taxaw bu dee li may wax amul balaa maa jéggi fii yal na ma oto yan barki Cheikhu Tidiane laa la waatal mantulaay mbëggeel si sama yaay moo tax ma ñëw ndax bëgguma mu loru léegi nag sama mag bu jigéen bi mu demee jënd café meew suukar yëpp ñëw jox sama yaay ne ko dee ci naan bàyyi kafe léegi moom bu ñëwee indi kaas bi sama yaay du ko naan da koy teg xool ba mu dem ak a bëri sutura yal na ko yàlla defal jàmm moom sama yaay da xool ba mu dem mu jël ko këpp ko ci fenêtre bi parce ci mbedd mi la féete mu këpp ko fa yaa dégg keroog ba ma woowee ko mu dem ci mbedd bi fu ne mu toog fa di yàq sama deru yaay naan sama yaay da waxal te sama yaay waxul man mii maa wax parce que daf koo dund na ñemewu wax moom ci boppam saa ko kiiwee dañ koo yàgg suivre lii ma lay wax nii man dugg naa ci waañ ba ñort mais aw ma woon preuve mhm. salté rek waaye bi ma demee ba am preuve wóor na Seydina Mohamed lii may wax bu dee amul fii yàlla bu ma fi génn lu leer nañ laa lay wax sam papa ma demal te man maa la jox ndigal demal. léegi yow lu mu jotee sa yaay noonu tout ça lan mooy problème bi ba mu war a jaral muy def yu bon yooyu. nit ku bon nit ku bon rek ak fréquentation bu bon moo tax mu di ko def. moo sa yaay musul jotee dara avant loolu moom ah moom buy dem du tàggu sama yaay sama yaay mosu koo wax wow na mosu koo wax tooy na moom dafa ñëw indaale reewandem ñun ñu téye suñu bopp ba tey kenn mosu koo yëkkati kenn mosu koo xuloog moom kenn mosu ta xeex ak moom parce que man damay liggéey mantulaay maa ngi nii ci liggéey laa jógee bi ma fi ñëw ci suba dama doon xëy damaa xëy tàggoo ñëwaat bi ma ñëwee suma wacce xam nga fan la jëm damay gontu wat fast damay gontu jiwaat fast food aw ma jot parce que lepp rek sama ya motax man may liggey kon duma nang ko koy toroxal li tax ma ñew fi xol bu jeex ta sam papa bi may ñew dama ko taggu bam sama jabarum papa la dem waxtaan ak mom, mune ma taggul sa papa la ngay dem bama taggo sam papa ma ne naa sam papa neena ma tuddal turu yaam tuddal turu papa bëgg na nga may ma tuddu turu sen tur xale bu jigen bi wax ngeen ko ne limi def euh, limi def non. wax xamal ngeen ko jëkkëram lañ ko wax jëkkëram wax ko ko sama yaay ne ma neewon na la bu ko wax ken ko ko wax ndax mu bako ndax def tu lu bon yéen yéen a koy suturaal waaye man man bi ma amee juróomi at dem daara alxuraan kon man naa fekk mënuñ koo fasaale ci man man mënuma nëbb dëgg mantulaay yàlla moo ma bindee noonu man koy wax képp ku ko dégg te dinaa ko siiwal pour nit ñi déglu lii ñu moytu am na sama benn xarit bu jigéen benn jabarul nijaayam da daan def lu bon ñoom waa Touba lañ gis nga jabarul nijaay toog bu daan dugg ci waañ bi day jël kanam gi raxas ko sotti ci ñulub bi benn ra benn sëru sama xarit bi di yóndu ci fenêtre di yóndu ci xam nga des fois waañ yi dañuy am pax mu yóndu ci birigu pax bi gis ko bi mu ko gisee jour boobu añul ñu laaj ko laaj ko mu ne añul waaye gis nga li yàlla di def kooku xam naa yàgg na ko def yàlla nag da koo weer daa mujjee woon dof bi mu dofee nag bañ koy faj fu ne ñu yóbbu ko fa ci la sama xarit boobu sër jëkkëram ci la netali li kep kuy def lu bon ma lay watal ni lu bon rek moy sa mujj te kenn mënu la satisfaire ak luñ la ti jox budé ay milliards kenn mënu la satisfaire dama bëgg ñi nga xamantene ñi ngi ko yëgee merew ko jëkkër ji mer na ci dem na laaj ko ko mu wéddi ko né amul bu ko dé xam nga numuy def légui sa yu jëkkër ji génné rek mi ngi dem ci koñ bi fu ne mu taxaw né mer bi lim ma waxal bi waxul man mi dooma man ma wax parce que mi ngi koy dund mënu ko wax man ma jog wax ko te sam papa taguna ko bi may ñëw fi te suma bayiwul won duma ñëw te taguna ko bam mbama ma am sañ-sañ ñëw fi te preuve yu leer la wax te it pareeguma ci moom de su ko arrêté wul dinaa dinaa whatsapp dinaa photo photoom dugal ko ci whatsapp bi wax lépp mu wër ci àdduna bi bañu ma ci dara na bàyyi lu bon li mu nekkee lu ma ci góobee gar ko yóbbuwu la tës man mii doomam di sa rakku jëkkër maa la yóbbu tës dama bëgg lu bon li nga nekkee nga ba ko bu dee bëgg ngaa siiw bu dee bëggoo siiw nag teel koo bàyyi ñu bëri ñi ngi def lu bon dama bëgg ñi nga xam ne ñi ngi lekk lu ñu xamul man fii laa doxee bàyyi naan café Touba ndax lii te ku bëgg café Touba waaye fii laa doxee ba ko lu dul fi mu ne ni café bu ma defar ñemeetuma koo naan ndax kii ndax ñu bëri ñu ngi nii di am mettitu biir di am ay feebar yu mel nii ñoo leen koy def te xamuñu ko ndax képp kuy def lu bon doo naan kaay xool maa ngi def lu bon kon nit ñi dañoo war a muus